السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينبكو مسترسدي مسترسدين والمسترسدات سينبكو إمام منصور مولن دنيو تدلن سيار جناب مجيت اللي تنيو بي كليفة جدي الشيخ شير محمد المصطفى di ko siyaar di ko ñaanal mucc di ko siyaar di ko ñaanal wér di ko siyaar di ko ñaanal jàmm ak mboolem lu mu njaboote mbokk yi sëriñ Moustapha dafa a wax ni e, saay-saay wala noon du tekki ngemb da koy yolomal mbokk yi bu gàmm gi jàll rekk ñu tëdd di nelaw mbaa ñuy yokkat maa ngi ñaan nañu continuer suñu jàng suñu yaasin yaasin mooy sayful islaam yaasin mooy jaasi lislaam yaasin mooy karange ci lislaam mbokk yi yaasin bennoon yi wëree seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jël seeni jaasi jël difion wu rey ko yaasin la ko yàlla jox waaw yaasinu yaqraw waykat ba loolu wax ne yaasin la yonent bi jàng rek isqalawhu wa waddahu ker bañ ko bañee bëgg ko génne bëgg ko rey keroog yaasin la jàng rek génn ci seen biir ñoom ñëpp ñuy nelaw yaasin it noonu la mel mbokk yi tey dinaa leen jox benn secret ci yaasin ñun ñépp ñu di ko def secret boo xam ne man jarabu naa ko ay yoon am ci ay résultat yu leer nañ benn bi daaw rek la ñépp xam nañu ñépp xam nañu man ni ma mel ci wàllu ay noon waaye ni ma mel ci histoire loo xam ni waaye nag loo xam ne dama ko doon ci sama wayjur ndax sama jur itam noonu la meloon ku bari woon noonu la ku bëri ñu ko contre la ku bëri ñu koy xeex la dañu mës a toog <clears throat> man ak Amadou Sow sama benn xarit bu daan liggéey CSE nekkoon eh, technicien SE ñu jël otoom ñu dem dëkk ba toog ak sama papa ñuy waxtaan bu ñu agsi ci affaire noonu Amadou ni ko ma dama bari noonu mu ne ko ah dama doom ji di am na secret bu ma ko war jox waaye dinaa leen ko boole kon ba man nga jàng sootu Yaasin Amadou ni ko ah, man naa ko de waaye ci tubaab rek laa ko jàng mu ne ko waaw waaw ne ko mu daal ne ma ne jëlal kayit ngeen bind naa leen jox secret bu ma seen maam joxoon mu ne ma bu guddee bala ngaa tëdd wala bala ngaa def safaawetal wala boo demee ba jël moo gën o defee sa tëdd ba njël nga jóg julli ñaari rakka loo jàng baax na soo nga def astaghfirullah ñetti yoon jàng fatiha ba mu àgg nga jàng suratu yaasin continuel jàng benn yoon rek ba agsi ci salaamun qawlan min rabbin rahim nga jël sa kurus baa mu salaamun qawlan min rabbin rahim junni yoon ak téeméer ak fukk ak benn muy limu laa taxaf waaw junni yoon ak téeméer ak fukk benn nga def benn def fukk def téeméer def junni wala sudee dee da ngay def dafu nga def junni def téeméer def fukk mujjee benn dégg nga mu ma nag soo paree da àggale saar bi tëjee ko fukki pare salaatul fatiha ak ñaar mu ni noon du musa mën ci yow dërë te yàlla dina ubbi si wërsëg bu dee ci yoon boobu nga koy jaar bu dee nag koy xeexal rekk la bëgg am ndam ci kawam bu gaaw wala soo moytuwul sax mën na caa jaare bakkanam dem ki lay xeex te yow nga toog di ko seetaan mën cee jaar ba kanam dem su boobaa doo ko jàng sax junni yoon ak téeméer fukk ak benn bokk si salaamun bu ngay jël te mooy salaamun qawlan min rabbi rahim bi ñu juutal mooy sirru ba baat la mayhun rabbun ranamun alwaxun maalasun mayhun rabbun ranamun alwaxun maalasun lii ngay def cent onze téeméer ak benn téeméer ak fukk benn moom ngay def àggale bi soo àggalee saar bi def fukki peesaatu faate ak ñaar tëji ko def ko addi yonent bi ko ñaan yàlla musal say noon lu la waay sànni mu dellu ci kawam musiba la ñuy def te duñ ko yëg musiba la ñuy def seen bopp duñ ko yëg lu bu dee xërëm lañ yaakaar nañ de bu dee ay kënu lañu ñu yaakaar nañ lu ñu mën a ñaan nañ ko ñaan secret bi maa la ko jox tey képp kuy Moustarchidine wala njaboot sëñ Moustapha Sy am nga ci ndigal man ni ma ci sama papa may woon ndigal may naa ci ndigal képp kuy njaboot sëñ Moustapha Sy waaye ku dul njabootam nag mënuma la ci may ndigal ndax nag man samay noon wax dëgg yàlla du ay njaboot sëñ Moustapha Sy kon nag mënuma ci may kenn koo xam ni doo njaboot sëñ Moustapha Sy ndigal wala damay dem ba wóolu la sama bopp mayal la ko sama bopp ndax secret bii képp ku koy jëfandikoo sa biiri noonu boo moytuwul di nga tiim ñëpp ci bàmmeel waaye nag nañu xam ni sañ suñu suñu kilifa noonam yii foofu seen loxo ni ko lëj ci këram gi fas yéene koo nangu sooy jëfandikoo lii secret bi danañu rocc seen loxo daw daw daw xel waxet te doo son sonn kon nañu jël sootu yaasin di ko xeexi waaye nañu jël sootu yaasin di ko aare suñu kilifa def nañ ko àddiyee sëriñ Moustapha ci ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.